xanaa ñu sant ko yàlla baax baax loolu moom lu baax la man ma moom yàlla ko dogal eh, xalaatam lu muy jàng yëpp ci àdduna Tuuba la waaw dafa amoon xarit boo xam ne daaw fi beneen tudd bi fii la ko fekkoon mais yàlla mi teewul nag mu génn ci àdduna Serigne Bass waaw loolu yëpp moo koy indi tey xanaa ñu sant ko yàlla di ko gërëm. man suma xol sedd na si lool baax a baax a baax. doom tudde Mouhamed jur doom tudde sëñ Bamba juraat doom tudde Serigne Saliou Mbacké kii lim nekk wane na ni carrément lu mu gëm la buur kii def ci àdduna dafa rëy bit bi duggati kenn dootul duggale di bit bu toll ci àdduna doom tuddee Serigne Saliou kenn dootul dugalati. mel ni sa dafa daw ba. non sama buur sama xol dafa fees mënu ma saw wax barke Serigne Touba kii kenn du kenn moom. man mi may bégal di ma yàgg bégal ray ma rek moo ko desee sang bi ray ma rek moo ko desee ray ma kese moo ko desee defal na ma lépp jur doom jox Serigne Sa jox Serigne Saliou tey bisu gàmm nga jur ko Serigne Saliou nga xamante ni moo ni woon jox leen ma ndaw ñi ma def ci li sëñ Bamba defoon ci mag ñi tey mu jëlaat doom joxaat ko buur mënu ma wax barke Serigne Touba.